leen di leen nuyu kenn ku nekk ci fa nga ne di seq ak yéen waxtaan bu gàtt dellusi ci tolluwaayu réew mi rawatina li fi xew démb mbokki Sénégal ñu ngi leen di ma saw leen masaw bu baax ci li fi xew démb ndax lu tiis la ci réewum senegaal réew mu mel ni senegaal lu tiis la ci xoolu kenn ko nekk ci yenn sénégalais yi ak foo munti bokk ci diine walla ci waaso wala ci dëkkuwaay li xew démb gàcce la ci senegaal àdduna bi yépp di ñu seetaan lii de lañ leen doon bañal moo taxoon ñu ne woon dossier bu nu mel warul sax génn ci enquête phase enquête gendarmerie waxuma laa procureur di ci def réquisitoire ba juge d'instruction di ko jël ba mu yegg fii mu yegg dossier bi warul yegg foofu yépp waxuñu woon loolu parce que dañoo jàppoon ni citoyen extraordinaire lañu ba du dee def bu dee def nañu dara yoon bañ ñu war a topp déedéet waxuñu ko foofu ndax li ñu gëm ñun ak li ñuy dund mooy li nga xam ne jàngal nañu ko ci diine bi yonent bi alayhi salaatu salaam waxee ni Fatima doomam ne ko ak li ma lay bëgg yépp boo defoon naka noonu yoon dal sa kaw te duma la làq sama gannaaw man loolu laa gëm kon waxewuñu woon foofu waaye dañu waxe woon ci kaw dossier boo xam ne lépp ay fenk la ay nar la ngeen jégal ma ci kàddu gi ay feni neen la dossier boobu warul woon sax ñu koy yëkkati rawatina nag mu yegg fii ba lu mat daanaka ñaar fukk ci ay bakkan rot nañ ci lii lañ doon bañal senegal li xew démb defe naa ak sénégalais bu ne fi mu toog rus na ni ma leen ko doon bañalee nag noonu la ko Macky Sall bëgg la leen ko bëgg leen ndax li xew ci dossier bi yëpp ma baamu ko weesuwul loxo Macky Sall ba waxee nag dañ naan moom dañu wax mu singali Macky Sall waaye Macky Sall mooy wax procureur defal mu def loolu est-ce que sénégalais xam nañu ko Macky mooy sant procureur jaare ko ci Ismaïl Madior fal mu def mu ne ko bàyyil mu ba kon bi procureur Bassirou Guèye di yor dossier bi def ci lim ci def ci ay ñaawteef ba ñëpp gis ko te loolu umpul Macky Sall mu encouragé ko si ne ko demal parce que boobu ja gisul leneen lu dul sama adversaire politique bi ma gën a sonnal bi ma gën a jaaxal am naa fu ma ko téye loolu andi woon fi lim bi andi woon diggante février ak mars 2021 senegal yëpp génn ne ko àndu li ngay def ci dossier bi ñaaw na salte na te teguwul ci dëgg ndax bu ñaawoon te salte te tegu ci dëgg yoon def li mu war a def rek ñu fooga ni bu ñu génnee ci loolu dina ci am lu mu jàngat mu boomoon ci fukki bakkan ak ñeent ba tey jii ñu ngi koy jooytuñu ñun ñëpp te commission d'enquête bi mu annoncé woon sax defu ko ci ñëpp foog ni nag Macky Sall bu jógee ci lii dina seetaat dellu gannaaw ndekete moom ma nga doon dem uti doole gu mu nootee Sénégalais yi pour mën a wéyal li muy def seetu ci kilifa diine seetu ci société civile seetu ci parti politique seetu ci kenn koo xam ne ku ñu war a bàyyi xel la Sénégal dañu war a jàpp ni Macky Sall li mu gëm mooy moom su mattee rek il faut mu dagg su mattee il faut mu dagg nekk na ci dëgg nekkul ci dëgg moom bu xasee ba mat faw rek mbir mu dagg mu nekk ci lool ku ne woon sénégalais yi ñaari at ak genn wàll ci gannaaw Macky Sall dina jëlaat dossier bi indi ko ndax lii lépp weesuwul moom li mu nekk ci gannaaw justice di ko sant ak di ko dig ñëpp gis nañu instruction bi nga xam ne juge d'instruction bi ñu wax maa xam jàll def na ko démb defe naa fi mu toog war naa am gàcc ndax yow sooy instruire dossier ba nga koy instruire yëpp mosuñu laa andil preuve boo mën a téye te looloo xew démb ñàkk preuve boobu ba Sénégal yëpp gis ko ñu dem nag ba démb ci ñi seede ñëpp ñëpp ñëpp nga xam ne mat nañu juróom ak lu tegu ñu dem indi benn seede boo xam ne kenn gisu ko bi ñuy dem gendarmerie kenn gisu ko bi ñuy dem juge d'instruction kenn gisu ko ba démb démb démb ñu dem làqarti ab témoin boo xam ne kenn xamul fu ñu ko jële waaye juge d'instruction xam na ni bi muy def instruction ba di ci bind ba di ma xas man ak di ma saaga yàlla xam na ni gënuma ci bépp fànn nag ndax li mu def xam nañ fi lu ko ko def loo te liggéey naa ba jóge fi ma fi ma doon liggéey kenn mësul xalaat man ñu mën maa imposer ab décision ak lu ko mën a lal ci suuf moo tax démb fi mu toog war naa am gàcce Sénégal yi war nañoo am gàcce ci li mu liggéey noonu noonu noonu ba nii ñu programmé mbokk yi xool leen ci ñaari weer yi ñaata ñaata yoon la ñu woo Ousmane Sonko ci justice ci lu tegul ci yoon ñu xam ni procureur moom mooy programme te procureur mooy ismail Madior Fall Ismaïla Madior Fall mooy Macky Sall ñu ne nag. citoyen yi du négocier ay conditions yu mu man négocier wu ma conditions yi ma demee justice dama négocier wul dara dama ne liñ ma bëgg a teg su dee du yoon duma ko def man négocier wu ma de ndax doo nekk ci dëgg ba pare di négocier niñ ma bëgg a ah di di di tëj sama koñ di terroriser sama njaboot di toj samay oto di ma gaañ fileeg looloo ngi fi du ma dem uyu ji kooku du négociation donte nag. am na ay kilifa yoo xam ne ci kilifa justice la lañu bokk ñoo dem ba naqarlu ànd ak nun ni li ñu doon def du yoon ñoom ñoo dem jël seen initiative woo leen ne leen il faut que état bi respecte liberté Ousmane Sonko en tant que citoyen mun a dem di ñëw saa ñu koy teg li koy teg ñoom nag ñu jàpp ni man maa doon négocier man négocier wu ma de man li ma nekk dama koo gëm nekk ci dëgg ku ma ëpp doole di ma soo may rey di nga ma rey ci dëgg waaye négocié wu ma kon ni ñu ko programmé ci fan yii yëpp procès sur procès bu la ci gën a ñàkk solo nga ne bii la te lépp ngeen xam lan mooy jubluwaay bi ñu ne woon donc gàcce gi am démb ay nit yoo xam ne ñaari at ñu ne yor nañu ay preuve yoo xam ne bis bu ñu ko génnee àdduna tukki defe naa keroog rek bi may mujjee wax nee naa leen ku ànd ak Ousmane Sonko boo tëddee demal nelaw ba yandoor ndax lu toll ni tarfata ayn ci preuve amuñu ko ndax lu am mooy am preuve waaye lu amut mënul am preuve mbokki senegal ndax yaakaar ngeen ni man Ousmane Sonko rafle naa ci jigéen ba naan maa ngi dem di siif jigéen loolu mun na dugg ci xelu kenn ci waa senegal di ko def nag di ko defaat di ko defaat ci bërëb boo xam ne mën nañ ma faa jàpp loolu xel mën na koo nangu xanaa su ma demoon bay siif sax du dem seetlu niroog dàngin gu AVC ma moom laay siif wax dëgg yàlla ñàkkuma choix man yàlla xam na ni su doon loolu rek laa soxla jigéen rek laa soxla bëri na foo xam ne bu ma fa xoolee tàllal loxo ne soxna laa bëgg ñu may ma tout suite kon ban rafle laa war a am ba di lambar lambari naan maa ngi siif ay xale yu jigéen amul benn jote boo xam ne am na sama diggante xale bi waaye ay nit jël nañ ko ñëpp xam ko xam ni Mamour Diallo moo sumboon mbir mi ànd ceeg maître Gabiso loolu ñëpp xam nañ ko moom ci boppam wax na ko ci ay audio fan la juge bi teg audio yooyu démb li tax tegu ko ñëpp dégluwaat ko lu dul laaj ne ko ndax audio yi nangu nga ko mu ne ko waaw nangu naa ko maa ko wax waaye dama doon kaf koo xam ne nee nga dangaa ëmb depuis ñetti at wala ñaaree at ak genn wàll wasinoo ñu ne la li tax nga wax ko dama doon kaf dama doon naxeete nga dellu si ni yor naa ay preuve yu dul jeex mi ngi fii sama téléphone mosoo génne ay preuve nga dellu si def say audio wax lu doy waar loo xam ne ku ne tudd nga ko ci ñi nga wër ne def na ma lii def na ma lële ne Mamour jàll moo ma sant lii ma dem ba xam ne aw ma pexe ma ne naa ko nax moo tax ma woote ne ñëw leen am naa li ngeen bëggoon loolu suñ ko tegoon ci tribunal ab juge warul sax naan damay toogaat di déglu 30 secondes waaye li gën a yéeme mooy ñii nga xam ne ñooy comploteurs yi ñoom la waroon yoon waroon topp tey ñu daan leen daan yu méttee métti ndax seen caaxaan bi lor na doomu aadama yu bari du bakkan yi ci rot rek waaye ñaata. ay alalu jàmbur yàqu na ci ñaata yoon lañu jël réew mi naj ko ba kenn noo noo yeetu ak image bi ñu yóbbu ci senegal ci international man mii nga xam ne maay principal victim bi bu ma amuloon sama fulla ak ndëgër laay te yow askan wi nga jàppale ma ci te yàgg naa la wax ni duma la mus a rusloo ndax wallaahi liñ ma jiñ defuma ko duma la mus a rusloo su du woon loolu tey maa ngi woon rëbës bu yàgg foog ngeen nag dinañ jaar foofu yépp ba egsi fii Macky Sall toog ne fa ma bàyyi woon liggéey bi fa laa koy waat dinaa ko yeggali déedéet loolu mënul ne ndax bakkan yi ci rot war ñu ñëw gën a gore ñun ñoom la wax ñu ne force restera à la mooy ñoom li ñu bëgg a def loo justice dañ koy def ba mu mat sëkk faalewuñ ci Masamba faalewuñ ci ba faalewuñ ci preuve faalewuñ ci ku am dëgg ñun nag ñoo war a am suñu fulla ba nit wan leen ni force restera au peuple mooy askan wi kenn du ko noot ci lu dul dëgg li xew démb gàcce la ci Sénégal rus naa ci am naa ci lu ma naqari li tax nag suñu xel warul dal ci justice ni muy doxee ba tey xam ngeen ni li xew démb yoon dafa ne munoo àtte nit en matière criminelle lu dul am na ku koy layal avocat kenn mënul def procès te avocat amul démb nday soxna su dul ndey nday xadi njaay su dul dara sax di jigéen goo xam ne mu ngi toll diggante ñu naan juróom-ñaari weer wala juróom-ñetti weer nga téye ko ci suba ba xaaju guddi nanguloo ko sax mu am avocat bu toog ci wetam ñu ne la bu amul avocat da nga war a arrêté ba ñu ko may ko mu dem uti ay avocat nga doog a def procès bi li xew démb mosul am ci histoire justice ci àdduna nga ne faw rek ma def procès bi mujj gi moom lañ doon wax moom Ndeye Khady ndax am nga laaj yooyu laaj témoin ndax moom mooy avocat wu boppam procès boobu dafa ñuul amul fenn ci àdduna naka la ay juge mun a defee loolu ba pare ñu ne ñu na seen xel dal dem leen rek ngeen wuyu ci bu amee ñaari sénégalais yu gëm ni dossier boo xam ne politique a ngi ci Macky Sall ne dee rek même su ma dul doon kandidaa sax Ousmane Sonko il faut mu yóbbaale ko ay nit dem di toog ak moom ay nit yu nekk ci nguur comme yu nekk ci opposition naan ko boo sàgganee ba Ousmane Sonko toog digg na la lii digg na la lële nee na dina la def nii na la def laa mu ne kanam la ci teg faw rek mu yóbbaale Ousmane Sonko waaye waaye waaye réew du doxee noonu réew lay doxee ci kaw ay chartes li war a tere Ousmane Sonko nekk candidat dafa war a doon lu wóor te wér waaye du ay caaxaan bi ñu commencé ba léegi ci tappale la ñu nekk nee nañu Ousmane Sonko jot na convocation waat naa ci yàlla billaahi wallahi bu dee jot naa convocation yàlla na ma yàlla alak ilaa yow miti te ñoom ñi wax ni jot naa convocation ku ci waat lii lakk commissaire bi bind ne ñëw na sama kër fii si Ziguinchor fekk ma ma taxaw ci buntu kër gi mu jox ma convocation wallaahi waxul dëgg dafay fen moom xam na ko ñoom ñu ko def xam nañ ko te li gën a yéeme nee nañu jox nañ ma convocation fii ci Ziguinchor le onze commissaire Adramé attesté ko ne commissaire Massali bi nekk Ziguinchor moo ma fekk sama buntu kër même commissaire Adramé moo defaat beneen rapport le 16 ne Ousmane ko jotuñu koo gis joxuñu ko convocation te moom nee na la onze jox nañ ma convocation. document yëpp mi ngi fi nañ ko génn ngeen gis pour won leen tappale gi nekk ci justice fi mu toll nii ak ni ñuy jalgatee yoon dès lors jox nañ leen commande politique ne leen yéen a xam fu ngeen koy jaare waaye faw rek ngeen dagg bopp waa ji président Abdoulaye wat dama dañ ma envoyé tey benn vidéo muy def benn interview benn tubaab ne ko oui mais un procès est risqué mu ne oui en Afrique un procès est toujours risqué mais j'ai toujours dit qu'un procès politique ne sa gagne pas au tribunal ça se gagne avec l'opinion su ngeen gisee sama taxawaay début ba léegi loolu laa leen bu bëggoon wax li xew démb won na leen ni lii weesuwul caaxaan waaye su doon dañoo caaxaan ci lu ko jar mais jël suñuy doom di def yu salte yi seen kanam àdduna yëpp di ñu seetaan lépp jàpp ni mën nga détruire ab doomu aadama lépp nga jàpp ni ndax Sonko mu sell mi ñuy dégg mooy dagg seen xol image bi sénégalais jàpp ci Sonko ni ah kii de ku baax la kii di jullite la kii ko jub la mooy dagg seen xol ñu jàpp ni procès bu mel nii mënoon naa yàq image boobu lépp ñu teg ko ci fen ak fenk li am nag ñun dañ koy dellu ci yàlla te yàlla mooy leeral ay mbiram ba mu leer nañ lépp dama ko jàppale nattu ay yonent sax nattu nañ leen ci lu mel nii moo tax yàlla bi mu naan ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun wa laqad fatanna alladina min qablihim fa la yalamanna allahu alladina sadaqu wa la yalamanna alkaadibin yàlla dafa ne du ma leen seetaan rek ngeen di fëgg dënn naan gëm nañu gëm nañu te du leen nattu du ma ba xam ndax yéen gëm-gëm ngi ci yéen noonu ma ko defe woon ñi leen jiitu nga xam dama doon nattu ba xam kan mooy wax dëgg ak kan moo du wax safaan wa nattu googu nag buñ ko jàpp rek ci wàllu imaan pas-pas ci diine mais yéen ñi ma bokkal projet bi yàlla ñuy nattu ba xam ndax li ñuy woote ci projet bi dëgg la ci ñun wala du dëgg fii ñu yàlla jaarale ñetti at yi mu metti loolu ci ñun ak suñu njaboot ngeen may ma ma rendre hommage sama njaboot rawatina samay soxna ndax dund nañ lu méttee méttee métti te kenn musuma cee wax lu dépassé te kenn musul jóg ne maa ngi génn kër gi kenn musul toog ba wax lu jëm ci lii te ñépp xam ni lii natt gu métti la ma leen rendre hommage soxna Khady Kébé ak soxna Anna Diamanka ak samay waajur ak samay mbokk mais ak waa parti bi yëpp ak sénégalais yëpp nag ndax sénégalais yëpp koo laaj mu ne lii xam naa ni ay caaxaani neen la waaye natt yooyu la ci yàlla jublu mooy gën a peese suñuy mbagg ba xam ndax li ñu bëgg a yóotu attan nañ ko nu dee dund nañ ci ñetti at yi loo xam ne gaw ma ni am na homme politique Sénégal bu ko mës a dund waaye nous sommes toujours debout parce que suñu lépp dañ koo dénk suñu borom dañoo am gëm-gëm te yàlla daf ñoo sant muñ ku yàgg muñ rek dëgg feeñ moo tax may wowaat Sénégalais yépp manipulation bi bëri na nee naa leen lu toll ni joto jote maag loo xam ne lu ñu nangu la sax amul sama diggante ak ndaw si te depuis le début wax naa leen ko waaye manipulation bi bëri na lañ ca bëggoon defe naa tey la furaas ndax xëy nañu seen presse yëpp génne ay titre ku ne di wax lu gën a bon fu ne nga dagg ko waaye peuple bi gëmu ko seen sànni tàccu def nañ ko lañu mënoon yëpp def nañ ko te amuñu ci la ñu bëgg la ñu mënoon yëpp def nañ ko te amuñu lañ ci bëgg manipulation dem na ba nga gis ab journal bu mel ni l'observateur nga xam ne Ousmane Sonko bañ a dégg jël li nga xam ne moom la docteur Alfousseyni Guèye wax ñu wëlbati ko totalement ba defe naa sànq rek balaa may commencer émission bi laa gis ni kooko bind na sax communiqué ne liñ ko wax loolu yëpp mosu koo wax nit loo ko bañ bañ bañ bañ dee ko waxal li mu def Sénégal yi kenn dofu ci ñu mën a déglu la ñu mën a xool lañu te loo xam ne suba ngoon jot. réseaux sociaux yi nit ñaa ngi doon def reportage en direct nga jàpp ni yow mën nga am xëy rek daal di chargé wax lu ñaaw wax lu bon génne Ousmane Sonko ci xolu senegal yi tey la Ousmane Sonko gën a nekk ci xolu Sénégalais yi li tax saa su ma génnee ñu gaawantu sànni lacrymogène xam nañ ni fu ma génn Sénégalais yëpp génn ànd ak man kon mu des nag fa ñu jëm bu ku xool li xew démb xam ni dossier bi dara amul ci amul benn li ñuy wax élément constitutif d'un viol début de preuve sax amul ñépp gis nañ ko defe naa li yi naan fen di bi jaaw tey jii Sénégal yépp xam nañ ni ay caaxaan la te wut pexe bu ne ñu ngi koy ut pour jaare ko ci justice pour foqati ab condamnation fi mu ne ni porox ndool la ñuy ut façon pression bu nekk dinañ ko def ci juge te ñun Sénégal la ñu dëkk fii relation yëpp xam nañ ko kan moo bokk ci ban club xam nañ ko kan la ñu jëlee fan andi ko fan xam nañ ko kan la ñu tànn ci ban anam xam nañ ko moo tax nag ma dellu si si ma waxoon léegi dossier politique politiquement lañ koy régler moo tax ma woo Sénégal yëpp ñu jóg takku tey la suñu marche vers le palais commencé tey. la suñu wala suñu phase terminale u marche vers le palais commencé incha rabbi nañu gën a dëgër gën a takk suñu ndigg ak sénégalais bu mu doon même boo nekkul membre passif waaye rek nga bëgg réew mi te bañ injustice yi ñuy def ni waroo ko nangu ndaxtam tam dinañu seetaan loo xam ne tôt ou tard bu ñu amee lu ñu bëgg ba ci opposition bi nag ñi ma ko bokkal mu leer ni Macky Sall bu amee li mu bëgg ci Ousmane sonk dina jafe trop mu am leneen lu ko të ndax loolu la yàlla dogal def na ko defaat ko mu yomboon loolu ci moom yàlla dogal bi mu egsee ci ñun la jafe ci moom mu jàppal ñu ko nag benn en boo xam ni ndax jàpp na ni moom euh, xàlloon na yoon woo xam ne ay waxu troisième mandat yooyu yëpp formalité lay doon ci moom mu yegsi ci ñun nag ñu doon dangar gi nga xam ne moo ko tëbalee ji moo tax mu def ko mbiru personnel ne faw rek ma def lu ma def ko lu méttee méttee métti lu nit xalaatul lu métti rek naa ko teg loolu nag dafa interpeller chacun et chacune ci ñun sénégalais yi ànd naa ak Ousmane Sonko ànd ma ak moom amul solo mais ku seetaan lu dul dëgg ba mu raw buñ ci paree ci fi gën a dëgër buy dal sa kaw dina la bett te doo ci mën dara réew mi justice lañ fi bëgg réew mi jàmm lañ fi bëgg te justice mooy indi jàmm réew mi tolloole nit ñi lañu fi bëgg réew mi bañ bàyyi di jël li nga xam ne dénk nañ la ko ci doole nguur di ko dalal di ko dalee ci kaw nit ñi loolu dañoo bëgg mu jóge fi gannaaw yàlla ma baamuwaat ko gisuma ci àdduna luy dund loo xam ne mun na détruire Ousmane Sonko ndax li ma defar ñoom xamuñu ko borom bi la moo tax may soñaat ñëpp di woo ñëpp pour ñu jóg jeunesse bi ci yéen lay doore lu ne ñu ngi koy def nag pour ne leen façon paraat bu nekk ñu ngi wut façon influenceur bu ne pour yaakaar ni mën na leen détourner yéen jeunesse bi waaye gëm naa ni yéen am ngeen conscience ni seen avenir ngeen di joué du jëmm Ousmane ko man nu mu tuuti tuuti li ma waroon am ci àdduna am naa ko te doylu naa ci waaye seen avenir la nous sommes à huit mois juróom-ñetti weer pour ñu jël réew mi yor ko ci yorin boo xam ne kenn ku nekk ci yenn dina ne man de xalaatu ma woon ni lii Afrique fii nañ fi yoree nii réew te mus musuma leen wax lu dañ nag lu ma leen mësa wax gis ngeen ko kon su ma leen ne lii dinañ ko def ngeen war maa gëm ndax gisuma lu ma ko jaral ci àdduna man alal daw taxumaa daw tur taxumaa daw daraja taxumaa daw waaye liggéey ngir yàlla rek lay doon sama satisfaction mooy liggéey ba Sénégal yëpp ne waaw góor ma dellu toog fi ma toog keneen toog continuer liggéey bi waaye du dara lu ma ci ut ci alal wala yu demee loolu bàyyi nañ ko yenn politiciens yi kon c'est pas le de baisser les bras yow ndaw sama jeune ak foo mun munti nekk muy artiste bi muy artisan bi muy keneen ak keneen étudiant bi élève bi képp ku munti doon transporteur bi baykat bi nappkat bi yow sama ndaw réew dama la tàllal sama loxo ne la dama bëgg ñu jaayante ci defar réew mi pas jaayante ci sànnil naa ko carte rek waaye ñu jaayante ci defar réew mi définitivement yow euh, euh, sëriñu daara yi walla nitu daara yi de manière générale yow transporteur bi yow keneen ak keneen ak keneen ndax ku rek juum maa ngi dellu tàllal leen loxo di leen woo ci mobilisation exceptionnelle Macky Sall na dellu gannaaw ci lii mu nekkee lu ko moy nañu jaral sax ñu ñàkk lépp waaye nañu taxaw jàkkaarloog moom jàmmarloog moom lii lañu bëggoon waxtaane ak di leen wax ni bés ni ki ëllëg gën saa gudd gannaaw ëllëg bu soobee yàlla dinañu door dellusi ci ndakaaru ñun ñëpp nañu waajal ndakaaru ndax fa mbir yi di ame dellu jaale ñi nga xam ni ñàkk nañ ci nit te mu waroon jeex ci Sénégal waxaat nag tamit ni war nañoo taxaw témbe bañ ñu jàppati suñuy nit ndax kii di makisal su làmbee mun a du dellu gannaaw day continuer di continuer jàpp ji bari na te tegul ci yoon te kenn mucc ci ku bind article sax ñu jël la tëj kenn muccu ci kon dañu takk suñu ndigg ndax lii weesu na dictature léegi dañ doon wax dictature rampante waaye dictature bu fes gànn la ñëpp di ko gis kon nañu takk suñu ndigg jàmmarloog Macky Sall bu xeet bu delloosee xelam xam ni moom réew mi donn ko ñun ñëpp ñu mayante jàmm lu ko may bu ñu gendarme fees ay gendarme moom fees suñu bët bu ñu ay policier mu fees suñu bët ay nit lañ ñuy ay nit te gis ngeen bi ñu taxawee ni ñu waroon taxaw mois de mars fi mu mujje kon maa ngi woo ñëpp ci ñu jóg taxaw gën a takk ndigg yi gën a farlu di sant sénégalais yi nag ci seen soutien façon message bu ne maa ngi koy jot mënuma tontu ñëpp di leen sant ci seen soutien ak seen kóolute ne leen nag lépp loo xa ne maa ngi ci doon def benn fasinaat yi def téeméer fi mu toog ni kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu.